leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla boole baal mu mel ni fi nga xam ni fa la ñu yàlla di xaare mooy ñu koy jaamu di ko sant te jaamu ji ñu ko topp di ko sant di ko ci ñaan wutuñu ci dara wutu ci dara moom yàlla xaaru ci dara ñoo ciy wut ñoo ciy xaar ñoo ciy gañe ñu ngi ñaanal nag baax kilifa yu ngànk réew mi ci wàllu diine sëñ Babacar si Mansour ayyadahu llahu wa nasarahu wa raah Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mboolem kilifa yu ngànk réew mi ñu ngi leen di ziar di ndokkeel di ziar di ñaanal wér sëriñ Maodo si da baax yàlla yàlla defal ko tawféex bu baax di ñaanal itam sëriñ Babacar si Abdoul Aziz di ndokkeel di ñaanal sëriñ Mouhamadou Moustapha si al maktuum bu daayira mustarshidin wal mustarshidaat yàlla defal ko tawféex di ndokkeel itam suñu sëriñ sëriñ Cheikh al Amin. ñu ngi koy ziyaara bu baax moom itam di ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiq ak mbooleem ñi nga xam ni mbokk yi ñoo ngànk déew réew mi dina ji di ziyaara bu baax itam suñu wala sëñ bu sa Dieng mbokk yi ba tey ci àqu dëkkandoo ñu taxaw tollu woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ne ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci ay dëkkandoom abu hurayra ni yonent bi nee na bés képp ku jël ci man baat yi di ko jëfe ci loxoom man dafa téye loxoom wàññil ko juróomi yif juróomi mbir ne ko yii ku ko def jàpp naa ni jege àjjana mooy gën ci yow jege safara mu ne ko ittaqil maxaarim <coughs> tëkkun abada naas ragalal maxaarim yi yi nga xam ni dafa xaraam yi nga xam ni yàlla tere na ko yi nga xam ni mën na la suuxloo te doo ci am ngërëmal yàlla doo ci am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa li xaraam nga xëy suba ba ngoon ragal ko di ko moytu yonent bi nee na boo ko defee dinga doon jaam bi dàq yàlla ci jaam yi di nga doon jaam bi dàq jaamu yàlla ci jaam yi kon boo ragalee yàlla boo ragalee li nga xam ni moo xaraam di doon ci jaam yi nga xam ni ñoo gën a ragal yàlla warada bi ma qasama allahu lak tëkkun agna naas yi xam nga teranga li nit ñi di woowe teranga muy richesse am na koo xam ni day am junni mu lew ko doom mu ànd ci mbégteeg fierté am une très belle journée bu ñëwee danañ ko ci toggal añ toggal ko ci reer defal ko ci ataaya defal ko ci jus ci junni bi kese am koo xam ni mi ngi wàccaaleeg deux cent mille même cinq cent francs par jour mais mi ngi kot koti ndax ñàkk doylu di dund dund gu xat amul jotu kenn wa tuhibuuna al maala xubban jamma te yaxsabu anna maalahu itam axlada amul benn benn jot lu dul concentré ci alal joo xamante ni saay bu xëyee mu ngi wut lu ko yokk te ku mu gis soxore la ñee la yàlla na yow mi nga xam ne li nga am néew na nga sant ma ci yonent bi nee na boo ko defee yaa gën a riche waaye nag waaye nag wa ahsin ila jaarika takun muminan xam nga jullit nga nee nga gëm na yàlla mais sa gëm pour mu sérieux mu ne rafetalal jëm sa dëkkandoo étape bi ci topp mooy wa uhibbu linnaasi maa tuhibbu li nafsik ahabba linnaasi maa tuhibbu li nafsi wa uhibbu linnaasi maa tuhibbu li nafsi li nga yée li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ñëpp mu ne boo ko defee tëkkun musliman di nga nekk ku gëm yàlla di nekk julit kon yëgoo ni fekk li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko nit ñi ko nekk goo julit mu teg ci nag ne wala tuksiru dexk fa na kasrat dexki tumitul qalb mu ne nga bañ di reetaan reetaan ju bëri ndax reetaan ju bëri dafay rey xol reetaan ju bëri dafay rey xol mu ne itam alal xayr ngay dimbalante ngeen def ak taawun dimbalante ci yiw jëmee ci sa dëkkandoo rafetal kenn ku ne ci yéen jëme ci moroomam dimbalante ci yiw nëbbalante ay ayib te li ne sa xol toujours booy wax sa dëkkandoon na doon li ngay gém na doon lii génn sa gémmiñ di jëm ci moom maanaam mu bañ doon le contraire ngay wax loo xamante ni wuute nag la ci xol bi an takuna saadiqan fi aqwalika dëggu ci say wax yi ngay wax ak moom say jëf yi ngay jëf ak moom ci kanamam ak ci gannaawam ci kawam ak ci suufam bu fa nekkee ak bu fa nekkul ci présence am ak absence am yëpp amal benn discours ci moom loo xamante ni buñ ko nekkalee ci ginnaaw boo ko déggee doo ruus te ko dimbali ci sa alal sa doole sa kattan dimbali ko ci say relation bu fekkente ni am na loo xam ni soxla na ko te mënu ko am nga mën fa àgge àgg ko ko wàññiw la dara te bu mu ànd ak ay wax saa yu ko yittewoo nag saa yu ko yittewoo rek amal taxawaayu intervenir positivement moo xam ci wàllu justice la moo xam ci wàllu ñaawteef la moo xam ci diggante bu nar a yàqu la moo xam ci xuloo la moo xam ci jafe-jafe la saa yu la soxlaa ñëwal taxaw positivement te la ngay taxawee nag boo ca paree fàtte ko waaye def ko ba pare wër ñëpp ne maa ko def pare nga ci amatoo ci yàlla amatoo ci dara mu teg ci nga bañ ko indil sikki sàkk ci sa diggante yow ak say ak ay ak ay dëkkam maanaam nga bañ a dox sa diggante dëkkandoo ak yenn dëkkandoom ba ñu bañ ko waaw am na ñoo xam ni mën nañu dox ci diggante ñaari dëkkandoo ba kenn dootul xool sa morom te kenn du xam lu ñu jot te du ñu xam ki leen jotaleen te mbokk yi ñoo ñu def loolu yàlla ne yonent bi sax bu ñu dee bul taxaw bu leen jullee bul taxaw seen bàmmeel ndax dañoo weddi seen borom ci la mu leen digaloon ñooñ ñooy kàccoor yi te dëkkandoo yépp bi ci gën a bon mooy dëkkandoo bu naafeq loolu incha allahu rabbi danañ ko gën a yaatal ci émission bi di ñëw incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaani muslim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh